Heavy Mess.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 ngan ni mbir mi nag mu ngi xewee ca crèche bu ñu naan la Sicogne Bleue fi mu ne nag waajur yëf yi metti na leen ba fu metti yem ndax baayu xale bii di Magor Dia songu réseaux sociaux yi yàbbi ci ak meram waaw waaw ne gannaaw bu mu yóbboo doomam boobu di bébé bi te am dix mois ci crèche ba ne altine 30 novembre vers treize heures et demie la leen directeur u bi woo ne leen nañ ko fekk si ca sàmm principal ne bi ñu yegsee dix minutes après médecin bi woo leen ne leen seen bébé bi ngeen fi indi woon ñàkk na bakkanam eskay bayu xale bay wax de nee ñu ne leen bébé bi avant moo yegg si hôpital ñàkk na bakkanam te bi ne seen doom jooju amul woon benn antécédent médical te buñ koy indi ci crèche bi xale baa ngi dund bég di fodire ndeysaan magoor jadi xale bi ne bi ñu yóbbu seen doom ci suba soosu hôpital benn siin buy wane ne xale bi dana faatu gisuñu ko ca yàlla nee lii ku leen ko waxoon duñ ko gëm baay bi nag fi mu ne jaaxle na ci yëf ni mu demee ak lan moo war a xew ba seen doom ji dee jar naa laaj nag te ma góor jaa di bàyyu xale bi ne lu taxit ñu yéex leen koo wax fi mu tollu deewu xale bi tax na ñuy posé wu ay question yu dul jeex di laaj naka la seen doom jooju faatoo ak ci yan condition la faatoo fi mu toll nag décidé nañu ma ne dalee jusqu'au bout wolof nan ko dem ba ca njombaxtal ga ngir yëf yi mën a leer waaw waaw na leer de seen doom jooju nag tax na ba way jur yi di soññat nguur gi ci ñuy contrôler crèche ak tamit di gën a am vigilance ci seeni doom mbir mi nag mujj naa teeri ci loxoy procureur waaw moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax waaw góor gi nag li mu doon dëkkee def ëpp na dee ma ne góor gi ab infirmier la at yi toll ci juróom-ñaar fukki at ak juróom kii de xanaa kurus la waroon yor toog ci sa yaadam góor gi daal ne li mu yàq ci ay ëmb ëpp na fukk fukk subhaanallah nga ni góor gi ñu ngi ko doon atte ci tribunal flagrant délit bu ndakaaru kii kay chambre criminel lañ ko doon ci wàllum yàq ëmb eskay ma ne góor gi ab infirmier bu retraité la di wuyoo ci turu oo njaay moo ñëw ci moom ne ko dama ëmb te ab sinuwaa moo ma ëmbal ah ah tey suñu jigéen ne koy daa am kersa doomam jooju mu ëmb te sinuwaa bi ëmbal ko juddoo ci moom <laughs> ay waay Ndey Samba ci la ne góor gi na ko tàqaleeg ëmb bi góor gi ma nga dëkk ca Cees ma ne ci kanamu yoon nag góor gi ne lu ni mel yàgg na ko def depuis 2016 mi ngi def méccam yàq ëmb man dey kii moo ma gën a baax conscience teyit ne def na ko lu ëpp fukki jigéen may laaj nag méccam rey nit nan la ko nit mën a ndax xaalis ba noppi am conscience bu tranquille moo jara laaj de waaye tamit suñu yenn jigéen ñi war nañoo bàyyi wasa seen bopp nga gis koo xam ne day nekk ci li ko neex topp ba neexam ba xëy ëmb dal ko ci muy victimiser wu te xam nga lu muy mujjee def mooy dal di sacrifier doom ji nga xam ni yoonam nekku ci waay booy daw gàcce kay bul dugg mbaa def luy tax nga am gàcce te li ci gën a doy waar nag mooy danga koy def ba noppi gën a siiw ba noppi ëllëg nga am ci say mbugalu borom moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax waay kii moom nit laam wala nooxoor la waay waay kii a soxor te bon ma ne kii mérité wul kaso laa wax kii li mu mérité dëgg mooy ñu yóbbu ko ba ca place publique ba fusillé ko waa ji mu ngi wuyoo ci turu Amadou Diallo ñu naan ko alias Abdou Fall am ñaar fukki at ak juróom-ñett sawaay ko ko doon ca chambre criminelle bu Tambacounda tëj nañ ko nag giiru dundam ci wàllum faat bakkan ma kii kaso du place laa wax Amadou Diallo alias Abdou Fall nee ñu ma nga dëkk yang-yang ca Linguère sawaay Kuccaari la doxee Tamba distance bi toll ci fanweeri kilomètre ñëw kër Samba Ba bi ko hébergé woon sawaay nag bi muy génn mu acharné wu ci Samba Ba mi ko dalaloon dal koy dóor ay ay jaasi ba mu faatu la ilaha illallah noonu sawaay ci la dawee dem ci village bu ñu naan Sinthiou Baydi daal di dugg ci benn kër fekk fa jëkkër ak jabar couple bi bi ñu déggee bruit ci kër gi ñu génn di xool lu xew couple bi ñu ngi wuyoo ci turu Amadou Ba ak Oulay Diallo bi leen Amadou Diallo alias Abdou Fall gisee daa di leen songu gor Oulay Diallo jabar ji ci baat gaañ ko gaañ bu metti ñu naan yetewaay mu song jëkkër ji di Amadou Ba door ko jaasi ci masuwaar xolof di ko wax ngaam hm, waay kii nit la naka noonu bay di ba di appa màgget bu am juróom-ñaar fukki at ak juróom-benn moom it dégg yuuxu yi daal di génn di xool lan moo xew ci la dajeg raykatu nit boobu mu song ko door ko fukki jaaseeg ñaar la illallah ma ne sa waay yemul foofu de ndax daa mujj tëral góor gi ne ko dekkat rendi coo may laaj nag kii est-ce que war naa tëdd ki suñu kaso yi di lekk ceeb ak a dem suñuy duus moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax réew mi nag ab yonent bu bees feeñ na fi nee ñu ma nga dëkk ca Kolda ñii ne ma nga ca Sédhiou moom daal indi na diine ju ñu naan mbàkke ruuxu am seenub kaaba ak seenub téere bu ñuy julli sax ci seenig lakk lañ koy jànge bu ñu eggee ba ci allahu akbar dañ naan yàlla wani Maodo kay mim réew réew mi lu ne na xew moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax la xew ca gidda caroy kaw doy na waar mbir mi mu ngi xewee ca bassin bu ñetti mbaar ab jigéen a am doomam ñëw ba ci bassin wu ñetti mbaar ba mu ne ko fa xër sànni waay waay waay waay kii ñàkk xol ma ne ay taalibe duggoon ci bassin bi di foo dal di gis liir bi ci lañ ko waxe waa koñ bi gannaaw ba police ñëwee xool ya fi nu mu tëddee nag sapeur pompier yi ñëw nañ jël neewu liir bi yóbbu ab lanket nag ubbi nañ ko ci ay doom nu mu neexee nga jur ko sànni metti moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax waaw fawukaay yi ñuy jaay ci réew mi te di ci def sàngara waaw ma ne ñuy def jëf ju ñaaw jooju seen jëf ji lu ko wundu réew mi bu yàggul déggoon ngeen fii ay jouet yu ñu fi indi woon mu am ay góor ak góor yuy foonante ak ay jigéen yuy foonante léegi nag indi indiwaat nañ fi yeneen fowkaay yoo xam ne ab sàngara la ñu def ci biir te suñu xale yu ndaw yi ñoo koy jëfandikoo may laaj nag waa réew mi ñan ñoo bëgg a yàq suñuy doom ndax dañ ne réew moom boo ko bëggee yàq ci ñaar ñi ngay jaar ci jigéen ñi ak xale yi ah, teel a mandiloo suñu doom yi baaxul de moo tax réew mi rigueur dëgg moo fi war a am sinon lépp dana yàq mu doonoon seen xibaaru buzz dig sam samedi yeneen xibaaru buzz